mooy suñu kilifa nekkal fi Serigne Touba moo yebal ki nga xam ni mooy porte parole am di Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khader moo am yóbbante bu am solo boo xam ne bii da ko bëgg a partagé da ko bëgg bokk ak mbokk jullit yi ak mbokku taalibe yi ñuy ñaan nag képp koo xam ne bii yaa ngi ci jullikaay bi nga toog déglu ko mu joxe li nga xam ne lii mooy yóbbante bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha wax na ko ko ngir mu mën ko jottali mbooloo mi xam naa ni du yàgg nag ndax ku ne xam na ni bu ñu julee ba nuppi rek bu imam ñaanee mbooloo mi day tasaaroo dem ci seeni yitte waaye lii day loo xam ne lii ndigal la lu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ñuy ñaan ku fi nekk ku ne mu déglu ko te mu déglu ko sagawam kon ñu jox Cheikh Mouhamadul Bachir kàddu gi mu jottali li nga xam ne lii mooy ndigal li nga xam ne moo jóge ci Cheikh Mouhamadul Mountakha bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin bokk julli ji tedd fi teew ñi ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalul cheikh Mouhamadou Mountakha alxalifatul aam li tariqati al muridi xafidahu llahu taala wa raa ñu ñaan suñu borom mu dëgëral ko guddalu fan mu sàmm ko ba mboolem naal yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci yoonu Sëriñ Tuubaa yi suñ borom may ko kàttan ak ba lépp mu àggale ko ca ko bëgge mu yónni ma ay kàddu nag yu jëm ci bokki jullit yi ak bokki taalibe kon ginnaaw bu ñu siyaaree Cheikh Mouhamadul Bachir mii nga xam ne moom la sëriñ bi tànn defal leen ko imaam euh, alhamdulilahi rabbil alamin ñëpp ci war a sant yàlla bu baax ndax mati na ko sëkk mboolem sart imaam yi yàlla suñ boom dajale na ko ci moom lépp teg na ci yoon kon liñ koy ñaanal rek mooy euh, yan bii nga xam ne yan bu réy la ndax fii xam ngeen ni mu demee kon bu ko fi sëriñ bi tànnee ngir yaakaar ak kóolute tam mate ko dañ koy ñaanal ni ko sëriñ bi séentoo rek mu yàgg ndax matale gi mu am na kon ñi ngi koy sant di rafetlu itam xutba bi nga xam ne def na ko danaa ci ñëw tuur ci biir wax ji ginnaaw bu ma jotle nuyoo sëriñ bi mboolem naay borom yëpp te buñ ci tuddee sëriñ xaadim tudd ci oustaz Cheikh Gueye mënu yóbbaale njëris di nuyu alhaji Bakki Fay sëñ Bakki mi nga xam ne moo fi teewal sëriñ bi ci ndakaaru ak likowër yor fi kàddoom danaa ci ñëwaat ci biir wax yi kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu wax ji du gudd ndax fa iza qudiyati salaatu fantashiru fil ardi wabtaxu min fadlillah waaye wabtaxu min fadlillah xam ngeen nu fasiroon firee mooy dirhamun lil maash te mooy looy bu sir wala yiw ëddaak ak kon lii dañuy jàpp la Sëriñ Tuubaa tontu woon mel ni mbokku mu ñëwoon ci moom di ko nuyoo rek ñaari njabootam ne ko kii de sama doom la goo xam ne ci jàng alxuraan ak jàngale ko rek la yëngatu sëriñ bi ne ko rijaalun laa tulhihim tijaaratun wala bayhun an zikrillah mu ne ko ki ci des itam mooma ci wàllu kër gi ci wàllu commerce lay yëngatu sëñ bi ne ko waa wa axaruuna yadribuuna fil ardi yabtaxuuna min fadlillah kon lii ñu defaatit ci loolu rek la bi kon Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na mi ngi nuyu bokk jullit yépp la ci jiitu nag mooy ak cant ndax barab bii di Masaalikul jinan sëriñ bi dafa wax ne alxuraan dafa wax ne wa anna al masajida lillahi falaa tad'u ma'a allahi ahadan kon innama yaamuru masajidillaahi man amana billaahi wal yawmil aaxir kon loolu jullit yépp ko bokk kon nañ xam ne jàkka ji néegu bi yàlla la kon nag nee na ba mu koy woote di ubbi jamaa ji dafa waxoon ne bëgg na mboolem lislaam jëpp xam ne jàkka ji jàkkay lislaam la loolu nag mi leen ci sant ndax yëg na ne istajibo lillahi wa li rasul isa daakum lima yufikum wane ngeen ko ci ndax jàkk ji kenn mënatu fee xàmmee ku bokk ci yoonu murit ak ku bokk ci beneen tarixa ak ku bokk ci lislaam ji nee loolu mu ngi koy rafet bu baax di ñaan yàlla saxal ko di xam ne masaaliku jinaan ji muy ji muy firi dafa war a nekk mu fattaxatan lahumul abwaab loolu nag lii moo koy dundal kon nee na mi ngi sant mboolem bokk julli di sant bokk taalib yi ndax jàkka defuñ ko rek ngir rafetal waaye li koy dundal mooy ñafe fay julli kon nag ñi ngi soññ ñëpp ci ñu xam ne julli mooy imaadu diini fa man aqaamaha faqad aqaama diin wa man hadamaha faqad hadama diin kon nee na mi ngi ciy soññaat bokk jullit ak bokk taalibe yi ñu dundee ko noonu te xam ne Serigne Touba wooteem bépp mës a génn lislaam dara mës koo itteeli lu may lislaam lislaam jooju mu doon woote nag yéen wuusi ngeen ko ci te Serigne Touba bañ na ko ba attarixatu muridiyya sax ñun ñoo koy tuddee waaye Serigne bi tuddee ko noonu ku jëm ci yàlla rek la ko tuddee. xam ngeen ne Serigne Touba mboolem wird yi wirdu alqadiriya ak atijaniya ak achazaliya yëpp am na ci ñoo xam daanee na ko jox ba ci biir yoon wi ak Cheikh Ibrahima Fati xam ngeen ne Serigne bi joxoon na ko wirdu yooyu yëpp ba daan na ko joxe am na ci ñeneen ci yoo xam ne mën naa ko tudd ci biir yoon wi ñoo xam ne ku ci ne joxoon na le wirdu yooyu lépp ngir xam ne mbiram xatut kon képp ku ko bëgg sopp ko rek yaa ngi ci biiram Serigne bi kon loolu mooy li jiitu cant gi ginnaaw bu loolu jàllee nag li ci des ndigal la loo xam ne da koy jëmee ci taalibe yi Sëriñ Tuubaa yi yi nga xam ne lim seq ak ñoom mooy digal leen ak tere kon nag kunu maa al xaqi maa ma kallafakumul amru nee na kon mi ngi fàttali ñëpp ndigal li nga xam ne moom lay bëgg a joxe ndax jàkka ji bi nga xamee ne Cheikh Saliou Mbacké naaloon na ko ca pàkk bu njëkk ba ba yàlla def barab bi ñëw bi mu barab bi yaatu cheikh Mouhamadou Lamine Bara mbakki agsi dugal ci institut islamique recherche di Cheikh Ahmadou Bamba ak salle de conférence boo xam ne war naa mat ñetti junniy place ak juróomi téeméer moo nekkoon ci plan bi xam ngeen ne biñ koy tàmbali noonu lañ ko waxee ba yàlla def jotuñ ko tàmbali tegoon xeer bi ak Cheikh Sidou Mokhtar ñëw ñu tàmbali liggéey bi ba liggéey bi sori bañ doon bëgg a tàmbali sax salle de conférence bi ak institut bi Cheikh Sidou Mokhtar wax ne nañ fexe ba jël liggéey bépp jëmee ko ci jumaa ji ba mu àgg lu ci dolli ko door ci dolli ko kon loolu moo doon ndigal la ndigal nag bu agsee ci taal bi waratu ci am xalaat waratoo ci am bëgg-bëgg. moo tax fa saas rek lañ ko daal di jël ne ko tegg fi suuf amatuñ ci benn xalaat ba yàlla def a cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Diop moom it yàlla na ko fi yàlla yàggal ba mu agsee dégg ngeen lam njëkk a wax sama yitte jëpp maa ngi ko jëme ci daara cheikhul xadim ci muy université ba muy tabaxal Serigne Touba ca Touba kon Serigne Touba ku ne ak lam la liggéeyloo ndax naan la fi waxam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko tàmbali woon Serigne Saliou ñëw àggale ko ba ñu ubbi woon ko bi Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëwee nag ne sama yitte jëpp ak sama xalaat yëpp mooy daari Cheikhul Khadim ji laa fa séenoo sumb ba mu àgg liggéey ba nag ñëpp xam nañ ne ñaga kon ni mu ko soññee woon ci màggal gi rek na ko ñëpp xamee noonu li fi liggéey bi àggul rek na ko taalibe yi xam ne lépp seen jëf ko war a def nit ñi rek la Serigne Saliou Mbacké daa wax rek. joxe bi dafa jiitu laaj bi kon seen yitte ak seen pëstéef ak seen bëgg Sëriñ Tuubaa kenn nattab ko waaye nag ab bi ak salle de conférence bi ndax liggéey Sëriñ Tuubaa dañoo jaay suñ jëmm jaay suñu alal ngir jënd ko ngërëmu Sëriñ Tuubaa muy la suñ borom waxoon ci alxuraan ci digg ma saxaaba yi ishtara min mu am anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna kon nag ku sukk jébbalu te yaakaar Sëriñ Tuubaa da xam ne sa lépp Sëriñ Tuubaa ko kon waruñoo dencal dara ëllëg ngir xam ne denceel ëllëg kat la fa gën mooy la alxuraan santaane hal adullukum ala tijaratin tunjikum min asabin alim tuminuuna billahi wa rasulihi wa tujahiduuna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kon loolu mooy jihaad ci sa alal ak sa jëmm kon nag xam ngeen ne jihaad ci jihaad ci sa bakkan amatut kon li mooy jihaad ci sa alal kon nañ xam ne alal ji jëriñu dara lu weesu terloo ak suturloo la ci solo nag mooy la ngay denc ëllëg ndax loo fa loo fa fàggut bu ëllëgee doo ko fekk kon la sëriñ bi waxoon rek doomu aadama ñaari biir rek ko saq biiru jëmmam ji ak biir bàmmeel mu ne biiru jëmmam ji bu muy itteem ndax yàlla mi ko sakk mu wax ko warul la fa def la jëm wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi mu ne biir bàmmeel ak nay itteem ndax lu mu fa jëf du ko fekk kon nag li ñuy jëf ngir sëñ Tuubaa di ci yaakaar ak payam ëllëg loola mooy li solo ci ñun kon sëriñ bi nee na mi ngi ci joxewaat ndigal kon sëriñ Mbàkke yi boo jógee fii nanga seet noo ko daal di tàmbalee waajal ngir xam ne bu sëriñ bi jàppee dat bi waxtu moo xam nag na koy jàppee dana ñëwal boppam ñu woote ko mu teg xeer wi taalib bi yëpp sóobu ci ànd ko moom waaye ci diggante bi nag kon ab taalib bi moom du xaar. da ngeen ko daal di tàmbalee waajo lu ci waay man nga tàmbali ko ngeen xam ne liggéey bi dafa yaatu ba ca di mooy liggéey boo xam ne wërta taxaw ndax jumaa ji xam ngeen ne li ko tabax bari na kon moo gën a jafe fuuf entretien bi waaye entretien bi yombut ndax xam ngeen ne jumaa ju tul nii li ko war entretien lu ci yàqu ñu defaraat ko lamp yu lakk ñu soppi ko ak facture courant yi jumaay Tuubaa ji ak kër Sëriñ Tuubaa yi rek Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaari weer yu ne mi ngi ci fay 40 millions fi toll nii kon xam ngeen ne loolu du liggéey bu tuuti fii nag yéen ñi dëkk Dakar yéen ko war a def ci biir loolu xam ngeen ne li fi war bari na kon taalibe yi nañ ci gën a góorgóorlu tàmbalaat di ci jëf bu ci daa jëf ba liggéey bi ak si fii na nga daal di tobbaat saw sas loo ci defoon benn nga yokk ko ngeen xam ne li fi war bari na te sëriñ bi joxe na ndigal muy imaam. ak ñu topp ci moom ñu defaral leen ay kër ci fu jege barab bi ngir seenu nekkin ci barab bi mën a yemb loolu lépp nag sëriñ boobu joxe ndigal la war a def waaye kon yéen taalibe yi nag ñun taalibe yi sax nañ xam ne lépp suñu warte ndax kenn defalut Sëriñ Tuubaa lu ko gën a lii kon nag buñ jógee ci jataay bi rek na ko ñëpp tàmbalee waajal lu ci waay man loo man ak loo mënu nga def ko ci ngeen xam ne loo ci def rek da nga ca payu yàlla dañ ca daje ngërëmu Sëriñ Tuubaa te wa ridwaanu minallaahi akbar zaalika huwa alfawzul aziim wassalaamu aleykum wa taala wa barakaatuhu ñaan nan sëñ baa ngi ñaan amin amin amin